tey nag dañoo am lu ñu naqari lool ñun ñi nga xam ne ñoo féetee ci zone 2 ndax dañoo doon équipe boo xam ne dañ doon liggéeyal président Macky Sall ñu ànd ak moom liggéeyal ko liggéeyal bu rafet ci élection yi nga xam ne ñoo jàll mboolem ñi nga xam ne ñoo nekk ci zone bi ñoom ñëpp tey ñu ngi sama gannaaw ànd ak ñun bis bi ànd ak ñun naqar wi naqar wi mooy lan dañoo liggéey liggéey bu rafet ci parti bi te biñ liggéey liggéey bu rafet ci parti bi mu am koo xam ne moo ñu jiite woon génn ci parti bi dem ci beneen parti muy muy Moustapha Moustapha Seck légui nak ñi xamal président ne ko mbolam ñi nga xam ño ñoo ci parti bi ci son ñëpp ñepp ngi ci gannaawam ba légui diko liggéeyal mbolam dëkk yi nga xam moy fukk dëkk ak juroom yo xam police ño ñoo nekk ci son 2 du Touba Mosquée ñëpp ñu ci derrière euh, président Macky Sall diko liggéeyal légui nak dañoo déma dem ba remarquer ne defoon nañ liggéey bu rafet rafet ci parti bi te parti bi yëgu nañ ñi ngi liggéey liggéey bobu am ko xam dem na ba gis bopam génn ci biir parti bi dem ci benen parti muy parti Sonko légui nak ñun ba légui ñi ngi wax président ne ko ñu ngi ci gannaawam ñu ngi ci parti bi di ko jàppale moom it nag xam ne ñu ngi koy liggéey liggéey bu rafet fii ndaxte gëm nañ ne mooy gagné élection yi ñëw waaye fu mu mën a gagné te gagné wu Touba ga day des bu baax a baax te dañoo bëgg ñu baatarewaatu élection yi di ñëw mu gagné au niveau Touba massivement ndaxte kat réclamé na fi ay résultats yoo xam ne bu ko amee grace à son deux moom moom la te liggéey na liggéey bu rafet te ñu ma ñi ñu ñëpp ñu ngi nii kenn manqué wul kenn contesté wul moo tax bi nga xam ne déclaration bu dégg nañ ko ñu ma rassemblé waat famille bi nga xam ne mooy famille Sonde hmm. ñoom ñëpp ñëwaat waxtaan ba jubóo hmm. ne ñun ñu ngi ci gannaaw président Macky Sall di ko jàppale. Hmm. à partir aujourd'hui tey la ñu gën a dëgëraat suñu laxasaay tey la ñu gën a bennoowaat tey la ñu gën a boolewaat suñu bopp war ne kenn demul fenn ñu biir parti bi resté ci. kon parti bi nag xam ne bu dooleelee keneen koo xam ne dafa génn ci bitti seetaan ñëwoon ci biir ñëwoon ci biir boobaa dañu gis seen bopp bu baax a baax. te it amul lu dul président am ndam ta loolu lañ ko bëggal kon boobu na xippi xoolaat bu baax xam ni muy defaat ak parti bi xam nu mu koy dëgëraatale ba ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci terrain bi dinañ ko jàppale ci élection yooyu jàll ba écart bi mu amoon wàññeeku bu baax a baax ñu bëgg écart boobu nga xam ne moo amoon mu gën a wàññeeku baax bu ñu demaat ci élection yi di ñëw muy 2019 ñu fay ñu massivement